حديث الصباح حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة waxtaanu subateel muy dalal kenn ci boroom xam-xam yi ñuy waxtaanee lislaam ak xew-xewu jamono alhamdulillahi rabbil alamin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 ndax ñaanal ki la jiitu lu baax a baax la ndax saa yoo yoreb niiw te ku ne ci ñun am na ko ñaanal ko yërmandee yàlla moom tamit bu texee dafa lay delloo ñaan nga sa man-man gën a yokk sa am-am gën a yaatu sa yëngatu tamit gën a nekk di lu dal waaye tamit dana la ñaanal nga gën fee yàgg waaye soo yoreeb niiw doo ko ñaanal mukk sànni ko ci xaramel rek ñëw fàtte ko su boobaa moom tamit dafa lay ñaanal nga gaaw fee bàyyeekoo da lay ñaanal tamit sa man-man gën a xat da ñaanal tamit sa dund bi gën a am nëx-nëx moo tax ñaanal way jiitu ñi lu xama xam solo la ba gis nga alquran mi ngi ñuy wax ne rabbana xfir lana wali ixwaanina alladina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina xillan lilladina amanu ne yow yàlla yàlla nga ñu jéggalal jullit ñi jéggalal ñu ñi nga xam ne ñooy woy jiitu ñi da ko dooree ca ki njëkk a taxaw gëm yàlla di suñu maam aadama ba ci ki mujj sàngoo suuf ki ñu gëm yàlla ñi yow yàlla yàlla nga boole ñëpp jéggal leen boole ñëpp tamit yërëm leen te dugal ñu gis ñoom ci seen biir seen sa yërmande gi ak sa njëggal gi ñi nga xamee tamit dañoo feebar te jamono jii jamono la joo xam ne ki tëdd ak ki mënta tëdd fi nekk rek ak ki tawat ak ki mënta tawat waaye téeméer yoo lim booye boo waat ne juróom-ñeent fukk yépp ñu ngi sooxalee jàngoro waaye waaye yooya jàngoro yàlla na ko yàlla saafara saafara gu ànd ak dund ñi nga xam ne tamit ña ngay jug di kër kër yi ñu nekk bitim réew di daan seen doole ngir bëgg rekk luñ indil seen njaboot ñenn ñu nekk ci réew mi te bëgg a génn waaye yàlla dogalul seen ak mën a génn ku mu ci yaa ngay yëngatu ci sa xat-xat ga ak ci sa maanaam ñàkk ga ñoom ñëpp ak ñun ñëpp yàlla na yàlla boole barkeelal ñu boppam te barke duwul jëmm waaye jëmm jum nekk ñi xam ko yàlla na yàlla wàccee barkeem ci suñu jëmm yi defal ñu tawfiix ak taysiir kon nag tey dañuy continuer rek li nga xam ne moom lañu ubbi woon ak yéen démb te dëxal leen leen ko timit muy sàngara ak mbonam nga nga xam ne moo doon ndey ñaawteef yépp bokk ci li gën a gaaw ci luy rey garab ak lislaam gi ñu tàmbalee suñu waxtaani suba teel yi bon googu sàngara bon di ko reyee garab ak lislaam ga moo taxoon sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne laa yadxulul jannata aaqun wala muddubinu xamri ndax toujours yow mi rey garab gi du la fi ba bu garab gi dee rek ngay dee te sa wàll ci garab gi nga mën a rey waaye garab gi moom mënoo koo rey ba mu dee su boobaa nag kon nag yow li la garab gi reyee mooy nga ñàkk dugg aljana te ku demul aljana yaa nga safara yonentu bi ne ñaar de maa ngi leen koy teel a xamal bala ngeen a ñëw di ma fekk si ëllëg ca péncam yàlla ma ngeen xam ne ñaar ñi ñoom duñ dem aljana mooy koo xam ne guddeeg bëccëg mu ngi màndi heure bu ne rek mi ngi màndi ñaareel ba mu ne mooy xaleel bu dëngee ay waajuram mu ne ñii ñaar aljana yaatu na neex na waaye ñii ñaar ñoom duñ fa dugg ba ca tegu ci xadis boo xam ne jaabir ibnu abdillahi moo ñu ko nettali ne yonantu bi nee na ñett a ngi nii seen jëf ju baax ja du yëkkatiku te xam nga jëf ju baax kaw la jëm alquran wax na ko wal amalu saalixu yarfau kon nag jëf bu yëkkatiku rek mooy ne nanguwuñ ko lay tekki jëf yépp boo koy jëf rek malaaka yi ñëw yëkkati ko mu jëm kaw ba yàlla soxlaa ba mooy baatu kalimatu shahaada di laa ilaha illallahu muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa boobu baat moom dafa am doole ju day ni moo yëkkati boppam waaye moom dara du ko yëkkati moom la alquran ne ilayhi yasaadu kalimu tayibu kon baatu laa ilaha illallah tudd yàlla mooy yëkkati boppam waaye jëf joo waxati malaaka la ko yàllay wakkil mu yëkkati ko yonentu bi nag nee na malaaka ya may jox ndigal ñi yëkkati jëf ya di ko yëkkatee ci ndigalal yàlla la man ma leen jàngal leen ñooña ne nañ fi lañ ñu bàyyi ñetti jëf bi ci njëkk fi la ñu bàyyi jëf yi ndaw lu ñàkk kilifa ku xamut kilifa nanguloo kenn xilif la leen lu nekk rek sa kàddug bopp ngay déglu ba mel ni jaam buy daw ay sangam mu ne kooka feek ñëwul sukk ci kanam ay kilifaam yëkkati ay loxoom teg ko ci seeni loxo jéggalu leen yàlla nangu ñooña yilif ko mu ne lu mu ci timit rekk loola du jëm kaw du malaaka yi duñ ko mën a yëkkati kilifa nag dafa am solo te baax bala nga xam-xam ak kilifa rek nga seet ko ci rëbb yi rëbb yëpp ku ci këy walla mu gont wéeg fetalam ne day rëbbi lu muy wuti yàpp rek bu dajeeg bodoom fetal ko bu dajeeg lëg fetal ko bu dajeeg maanaam cokeer fetal ko waaye ànd ak loolu lépp mi ngi baxi ci kër gi ay nag te ñemewut leen a fetal te ñoo gën a bari yàpp mu ngi fi bàyyi ay xar ak i bëy te ñemewut leen a fetal mu ngi fi bàyyi tamit ay ganaar te ganaar ak cokeer sorewuñu waaye ñemewut leen a fetal lu tax ganaar gile ak nag wii ak gàtt yi dañoo xam kilifa moo waral kenn ñëm xuta dal ci seen kaw ñee nag rabi xàll lañ ña ngi ci xàll ba rek xamuñ kilifa fu waay jotee rek boo xamee xet sànnil soo xamee lasper tiireel soo xamee sa balu fetal tamit tiireel kenn du la fekk ne kenn du la fa fekk ne la lima doo ko dégg mukk lu tax doo ko ci dégg xamuñ kilifa kon nag ku xamut kilifa lu bàyyeekoo ci xàll ba ñëw dal ci sa kaw te dara du la mën a protéger ku xam kilifa nag balaa dara dal ci sa kaw dal ci sa kaw kilifa moo tax kilifa lu am solo la moo waraloon nag yonantu bi ne ku ñàkk kilifa bay demee say tànki bopp doo tàggoo feek bi ngay ñëwee jël say loxo teg ko ci sa loxol kilifa la gërëm loo ko loo fa julli loo fa xoor loo fa wax du paase sa mbaxana mi nga sol ñaareel ba nag mooy jigéen gu ñàkk kilifa bu ko jëkkëram ne benn mu ne ko fukk su ko toogloo du toog su ko teree du bàyyi bu ko xuppee du tiit balaa xam lu ko neex rekk mooy maanaam jëkkër gi ne ko benn mu tàcc ko wan ko gannaaw naqarloo ko bu ko jëkkër ji meree sax léeg-léeg muy fajee mer ma ca lal ba ko jëkkër ji jegee rek mu wan ko gannaaw tafu ca miir ba mu bi maanaa képp ku mel noona tamit loo julli loo joxe asaka loo xoor du yëkkatiku ñetteel ba nag yonent bi nee na mooy ku màndi feek bay maanaam màndi ga di huree fa wax ci lu baax mbaa mu jëf ko fa tamit du pasé mbaxana mim sol boobu hadis jaabir ibnu abdillahi moo ñu ko nettali ne yonent bee ko wax moo tax mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa yaquul salaasatun la yaqbalu llaahu lahum salaatan wala yarfau lahum fi samaai xasanatan al abdul abiq xata yarjia ila mawalihi fa yadau yadahu fi aydihim wal maratu saaxitu alayha zawjuha xata yurdiya anha wa sakaraanu xata yasxawa su ko defee nag kon kooku fekk ñett ñi lii mi ngi ci yow rek yàlla du ko nangu kon nag mbir yaa ñu bàyyi ci xel kon gis nga ko ba muy cité yu bon yooyu di ñàkk kilifa ci jigéen mbaa ci xaleel bu ko defee nag boole na ca bi maanaa naan sàngara ngir mbon su ko defee nag kon jëlee nañ ci beneen xadis abi said al xudari yi moom moo wax ne yonentu bi nee na sallallahu alayhi wa sallam laa yaqbalu laahu li shaaribil xamri salaatun maadaama fi jasadihi shay'un minha yonentu bi nee képp koo xam ne dangay naan sàngara jëf ju baax joo mën a jëf julli la lu dul julli yàlla du ko nangu mukk feek dangaru sàngara sa ma nga ci sa yaram wax moo tax sax daana wax ñett a ngi ku ca nekk sa gëm yàlla ga summeeku na taxaw di la xaar ba ca njëkk mu ne xamul kenn ci yéen kuy sàcc jamono jamuy sàcc gëm yàlla ga nekk ca moom moom kay ba nga sooboo bay sàcc rekk la gëm yàlla ga summeeku taxaw fële di la xaar mën naa dellu siwaat mën naa ñàkk dellu siwaat lépp nag luy summi gëm yàlla jar naa soril li nga sàcc ay million la li nga sàcc ay milliar la li nga sàcc ay junne la li ngay sàcc demee ni lekk nger la li nga sàcc romb toolab jàmbur jël ko la li nga sàcc jàpp maanaam ci gàtt jàmbur yi rawatina jamono ji àll ba sàcc yi bari na lool te li ma ci gën a yéem sàcc yi sàcc bu ciy feeñ jafe na bët bu set nga dégg dekk déclaré gétt ak nag guñ sàcc ay xar yuñ sàcc ay bëy keesu sareet ay fas te kenn mënta fexe ba teg bët ci sàcc yooya te li ci gën a yéeme sàcc boo ca gis ñaareel dafa am ndey sàcc ñi xam nañ ay ndey sàcc ca dëkk ya ñoo lay xaar ba ne la diw tey gàmmu jot na dañ gàmmu ji dëkk sàngam tey céet xew na diw day dem ca céet ga ndax mooy muur doomam tey nangam ak nangam rek booy tukki rek wane gannaaw rek léegi ñu ñëw xewi sa fas wi soo mënee neexle nga fexe ba gis ndey sàcc ja yëkkatiwaat genn wàllu njëgu fas wa wala lu xaw a tolloo ak moom jox ko ko mun la mën ngaa toog boo toogee mun la heure sàngam demal place sàngam danga nga fa fekk sa fas wa te ko kay sàcc piir la loolu nag nit ki di ci dund di ci dundal njabootam bëgg yaakaar xal te boo ne ko doo jullit mu mer jàpp ne moom jullit la moo tax yonentu bi ne laa yasriqu saariqu xiina yasriq wa huwa mu'min xamul kenn kuy sàcc wala nga nekk ndeyu sàcc di fat kuy sàcc di ko dimbale mbaa nga nekk di leen wax naan nekkal leen ca dëkk ba di leen wax ñu tukki ñaa nga dem ca gàmmu ya ba tax ñuy sàcc xalal li jàmbur ya yonentu bi nee na loolu xamul kenn ku muy nekk ci yow nga ne gëm nga yàlla moom kay ba nga cay sóobu rek la gëm yàlla nga summeeku comme bu moo summi taxaw fële di la xaar mën naa dellu si mën naa ñàkk dellu si waat lépp luy summi gëm yàlla loola jar naa sori àdduna kenn du ko jëlee xalaa xiraa te sàcceeg ndey sàcceeg lépp alquran nee na bu yowmal qiyaamee ku sàccoon aw nag mbaa nga dimbale ku sàcc aw nag wala nga sàcc aw sareet wala fas wala nga sàcc ay xar ak i bëy mbaa nga sàcc maanaam gerte jàmbur yeeg dugub yi mbaa nga sàcc maanaam alali peuple bi lu mën a doon ay million ay milliar ak ay junne wala nga sàcc loo mën a doon boo dañ la ko téeñal bu dee am am xar muy meem ci sa kaw bopp bi péncam yàlla mi yëpp jàkkaarloog yow bu dee aw nag ñu yan la ko muy muy muy muy bëmm bu dee aw fas muy ñexal bu dee ab xaalis ñi téeñal la ko ne xool leen diw ma nga nële moo sàccoon nangam ak nangam ci ca ca maanaam bis sàngam ci dëkk sangam ci weer sangam péncam yàlla mi yëpp jàkkaarloog yow loolu nag dëgg-dëgg mooy gàcca waaye gàcca ak àdduna gii du gàcca de parce que gàcca ak àdduna lu mu rëy rëy rëy rëy am na ñu ko yëgut te ñu ngi dund ak yow xam na ñoo xam ne duñ ko yëg mukk ndax dee nañ xam na ñoo xam ne yëg duñ ko yëgaguñ ko duñ ko yëg naa ndax juddooguñ waaye àllaaxira moom kenn du ab santé ñépp a koy fekkee su ko defee nag nañ baxi xel kon ci ak sàcc te bëri na lool léegi lool ba nit ñi bëri dañoo jël tey métier def ko maanaam jël seen métier ma def ko muy sàcc su nit ña nelawee rek ña ngay seet fu ñuy mën a maanaam langaamu ba mën a yeewu juri jàmbur ya ak la ca aju te loolu lépp la ca gën a métti gën ma caa métti mooy nday sàcc yañ am ñi julli ndoor ak ñoom ca jàkka ya di julli ndoor ak ñuy sàcc maanaam ca ca ca ca jumaa ya ñeen ña nekk ak ñoom ca dëkk ya soo dee la ñun la sigil ndigaale te lu la naqari moo la ko dal te xattaa nday sàcc jooju sax mën naa bokk ci ña lay seetle ji waaye day dem foo xam ne du feeñ mukk loolu musiba la kon nag yonantu bi nee na kon sàcc ngoog ku koy def ku nekk jamono ji nga koy def dëgg yàlla ñaareel ba mu ne lu ñu tuddee ak mooy te mooy jaxasoog jigéen joo takkut su boobaa jamono ji nga koy def sa gëm yàlla ga summeeku na comme mbubb mu ñu summi ko fële taxaw di la xaar moo tax mu ne wala yazni zani xiina yazni wa huwa mu'min ñetteel ba nag mu ne mooy naan sàngara kuy naan sàngara ku ne jamono ji ngay naan sangara gëm yàlla ga sumeeku na taxaw fële di la xaar mën naa dellu si mën naa ñàkk a dellu si waat moo tax mu ne wala yashribul xamra xiina yashribuha wa huwa mu'min kon nag yonent bi ñetti yi rek la wax ne mooy rekki gëm yàlla moo koy summi mooy sàcc njaalo naan sàngara waaye bàkkaar boo defati lu muy bon bon bon yaa ngi ko def ak gëm yàlla ga ma nga fa ba tey di mut waaye ñetti yi benn boo ca def rek maanaam gëm yàlla ga moom sumeeku na taxaw di la xaar ñett yi nag aka fee bari tey bëri na fi tey ba mel ni ñett yi moom lañ digle ak sàcc du fi jeex bët bu set nga dégg fi ay milliards yu ñuy coow mu mujj naxasaay bët bu set nga dégg fi ay junne ak ay millions yu ñuy wax di ko géngante mu mujj naxasaay ci diggante ñoo xam ne nii tudd nañu seen tur ya xam ko bët bu set nga dégg fi maanaam ak sàcc ci dëkk yi ca nag ya ca fas ya ca kees sareet ya mu mujj naxasaay te nday sàcc ngay am carrément neexal ko moom mu dem ne ba sàngam boo neexaloo tamit maam doo koy jot ci dara loolu garaaw na loolu yéeme na ana ngëm yàlla ana mbaax ana jikkooy mag ña ana yiw ak ngore gi nekkoon ci mag ñi nga xam ne waxuma la sàcc waaye ku ca foroon sax benn puso doo ko ñemee jëfandikoo doo ko ñemee sax ñaw sa yére ya bu sa yére yi xotteekoon nga farab puso rek laa wax puso booba doo ko ñemee ñaw ñaw sa yére yi waxuma la nag di ko sànq di ko jëfandikoo ci sa ci sa bakkan mais nit ñi li ëpp ci ñun dañuy wax ne gëm nañ yàlla mais bis penc lañ gëmut wala buñ ko gëmee tamit bàyyiwuñ xel ngir liggéeyal ko ca taxawaay ya ca aju ba ca tegu ci hadis yi yonentu baa ngi wax sallallahu alayhi wa sallam ne man sana aw sharibal xamra nasaxa allahu minhu l imaana kama yaqalaxul insaana al xamisa min rasihi kon gis nga ko mu ne képp ku moy te dëgg jigéen joo takkut wala nga naan sàngara sa gëm yàlla ga summeeku na ñoreeku na sànneeku na kom ba mel ni bi maanaa mbubb moo soloon ni ko summee ko ko sa porte-monnaie ba noonu la sa gëm yàlla ga summee kon nag nañ ci baxi xel bu baax baax bii xadis abi said abi musa al ashariyu moo ko nettali jëlee ko ci sayduna muhammad mu bokk ci xadisu imaamu ahmad yi neen du tàbbi aljaana képp ku dappetoo naan sàngara wante du tàbbi aljaana ku ne gëm naa yàlla di jëfandikoo njabar du tàbbi aljaana képp kuy dog ak mbokkam du tàbbi aljaana képp ku dee fekk ma naan sàngara soo lëggee yàlla dana ko naan ca maanaam ñaq ak maanaam awra yi ñu nekk biir safara bu ñu leen lakkee la cay génne ndox mu bon mooma la ñuy jël defar ko ko ci kaas nandal ko ko moom mi daan nan sàngara kon lii lépp maa ngi koy wax rek ngir wane sàngara ak mbonam te loolu ma ci wax rek waxi yàlla la waxi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam la te wax joo déggati bu dul waxi yàlla duul waxi yonantu bi su la neexee man ngaa wax en tout cas waaye yàlla moom bu xasee wax yonantu bi wax kooku moom en tout cas mënatu caa amati baat te yonentoo ne laa yadxulul jannata mu dumiru xamrin wala mu aminun bi saxrin wala qaatiu ruxumin wa man maata wa huwa yashribu alxamra saqaahu llahu min nahril xuutati wa huwa maa un yajri min furujil muumisaat ay azaniyaat yu'di ahla naar riixa furujihim furujihinna boobu xadis xadis la boo xam ne albaani yi wéral na ko yonentu bi ne képp koo xam ne dangay naan sàngara wala nga hóolu ne njabar mën naa jeexital wala ngay dog ak bokk wala nga dee fekk yaa ngi sàngara si naan boo lëgee jigéen ña doon moy di jaay seen bopp ci mbedd yi mbaa ñuy jaay seen bopp ca kër ya mbaa ñuy fekki mbaa ñu leen di fekk si seen awra ya buñ ko lakkee ndox mu bon ma cay génnee la ñuy jël def ko ci kaas nàndal ko naankati sàngara ya loolu nag bu ko yonantu bi waxee kuy naan sàngara war ngaa jàq kuy naan sàngara war ngaa tiit war ngaa timit gaaw nga moytu gaaw bàyyi ko bala ngaa dee ba ca tegu sàngara ci boppam yàlla dafa caa rëbb fukk xamul benn bàkkaar bu yonent bi taxaw ne yàlla rëbb na diw diw diw ba mat fukk lu ci sàngara rek sàngara la taxaw ne laanallahul xamra jëmmi sàngara yàlla rëbb na ko moo tax boo ko mënoon bépp bitig bu ñuy jaayee sàngara bu fa jëndee ji yow leneen lu dul sàngara sax ndax sa bët yi tege ci sàngara sax rek baaxut lu dul xanaa dara wala mooy lu ñàkk lu lor loo ta ñàkk nga xam ne yow da ngaa loru ñëw nga ci bi te ñaan sàngara te yow fi nga mën a añee su boobaa nag loolu moom dara néew ca jéggal nañ la ko ndax ad daruraat tubixul maxduraat ak ya ca aju dugg nga ci avion bi ñu ngi xelli sàngara nga gis ba bitéel nga ne man naanu ma ñu jox ñay naan kooku moom da loru ak yeneen yi nga xam ni nii aju na ca moo taxoon mu ne kon jëmmi sàngara yàlla rëbb na ko ba ca tegu mooy képp koo xam ne yaa ngi koy naan kay naan sàngara yàlla rëbb ko ka koy ka ca mooy ka koy nandale yàlla rëbb na ko ka ca tegu mooy ki koy jaay yàlla rëbb na ko kañ koy jaay yàlla rëbb na ko ki koy nal yàlla rëbb na ko kiñ ko nal yàlla rëbb na ko li aju woon ci xadis boobu yonantu bi daan wax ne sallallahu alayhi wa sallam laanallahu alxamra wa shaaribaha wa saaqiyaha wa baaiaha wa mubtaaha wa asiraha wa muctasiraha wa xaamilaha wal mahmulata ilayhi yonentu bi ne sallallahu alayhi wa yàlla rëbb na jëmmi sàngara moo tax sàngara fu mu ne soo fa manta ne yow jullit bi moo gën moo xam dafa nekk ci ab restaurant demal la añee ji foo amut sàngara wala mu nekk ci bitig bi ñu koy jaayee demal nekk jënd ci yeneen bitig yi amut sàngara la nga soxla te duhut sàngara wala ñu boole kook télécentre bu ñuy téléphoné demal nga dem télé nga dem téléphoné ji ci bi maanaa télécentre bu amut fu ñuy jaayee sàngara su fekkee da loru nag foofu rek fa ne te fii rek nga manee mën a dem loru nga sharia jéggal na la ko wala nga dugg ci avion ñi xel li ah gis googa nga gis ko tamit amoo ci benn bakkaar waaye neel du ma naan rek ñu indi la la ñuy naan yow la nga mën a naan loru gaa tax ndax yonent bi nee na woon ad daruraat tubixul mahzuraat waaye lépp loo xam ne loru taxut sa bakkan rek moo la ko yóbboo su boobaa loola ci lay bàkkaar bay ne ndax ñaareel looy xool lu bari bu yàggee nga xemeem ko loo xemeem bu yàggee nga mos ko loo mos tamit rek moo la yóbbu ci musiba kon moo waral jëmmi sàngara yàlla rëbb na ko naka noonu rëbb na kii naan sàngara sax taxaw ne xelil ma ma naan kooku yàlla rëbb na ko kay nàndalee xam ne mooy xelil waaja yore butéel ba di ko xellil ca kaas ba kay xellee kañuy xelil yépp yàlla rëbb na leen ba ca tegu mooy kiy jaay sàngara si ah bénéfice bu bari de ma nga xaalis bu bari tamit ma nga ca waaye bàkkaar bu rëy rëy ma nga ca ndax rëbbam yàlla amul dara lu toll ni moom ba ca tegu mooy kiñ koy jaay ki indi xaalisam ne jaay ma kooku de mooy ma ngay jënd ay dóoram danay wax ne ki gën a ñàkk si nit ñi sens gën a dofe gën a ñàkk xel mooy kii ne damaa bëgg a fay ñu dóor ma ku xam xel sax warul nangu ñu fay ko dóor ko mais ñàkk xel mi ngi ci naa fay ñu dóor ma parce que yow boo jëndee sàngara sa xaalis naan ko màndi jëlee ca bàkkaar ñu war laa caw juróom-ñetti fukki yar sa juróom-ñetti fukki yar yi yaa ko jëndee ci kaasab sàngara bi bu ñu la dóorul nag ngir xàttee woo ñu xàtteeb lislaam bu yowmal xiyaamee yar yàllay yàllay teg malaaka yi ñu dóor la ko yaa fayoon njëgg fii ci àdduna ma ne nag kon ku xam xel warul nangu ñi fay ko dóor ko ñàkk xel piir nag mooy naa fay ñu dóor ma ba ca tegu mooy kii nal sàngara sa di ko liggéey ca teng ya ak ki ñëw di nallu ne man kat dama ci bëgg quantité ngeen defal ma ko ci ay bëri ko nalal ma ko dama ko bëgg a jële dëkk sàngam yóbbu ko sàngam kay nal ak kay nalu yépp nekk sa client yéen ñaar ñëpp yàlla rëbb na leen ba ca tegu tamit ki ko yanu ki nga xam ne bi mu paree moom lañ ko yan mu xam ne liñ ko yan sàngara la su ko defee mooy ka ko kooku tamit maanaam yàlla rëbb na ko ak lañ ko xen bu dee tey ci oto lañ ko defoon moo xam safooru taxi la moo xam safooru kalandoo la moo xam waa ji sa oto bopp la particulier nga xam ne liñ ciy xen sàngara la xamal la ko nga jàllal bi ku nangu ko caa sëf am nga ca bàkkaar demal wuti client boo xamee wut sàngara wal mahmulata lahu wal mahmulata ilay la yonent bi wax yow nag boo ko xam mu ngi def ay kees rek waa ji waxante yow place sàngam laa bëgg a dem nga ne ko am say bagage mu ne mi ngi nii nga dugalal ko ca xamoo ca dara amoo ca benn bàkkaar waaye boo ko xasee xam rek jullit tere ko sori ko dem xuti leneen yàlla dana la jox lu ko gën kon amul benn bàkkaar booy fekk yàlla yonantu bi waxee ci waxin wu demee nii benn bàkkaar yàlla rëbb ca fukk ci sàngara rekk la xam kon sàngara bon te gis nga sàngara moomu yàlla ku yéeme la lépp luy lépp loo gis rek muy luy lore nekk lu bon yàlla bañ ko rek da koy jaay yàlla leen ko tere ñi bañ seytaane ne ma taxaw leen ma jaay leen ko waaye lépp luy lu baax yàlla bëgg ko xiirtal seen nit ñi rek dafa yomb xamut jaay xoolal ma tey kaasab ndox bu la neexoon tey jënd biron yu vingt litres yi ni segg ndox ma ba mu rafet mënul paase paase ba paase mille francs tey nag vingt litres ci sàngara loola ay junneey junneey junne lay jar lu mu dee dee yóbbu la ci lu ëpp téeméeri junne ndox mi boo ko naanee mu yokk sag wér nga naan ko jële ca yool ca naan nga nga naan ko sa dund gën a sell gën a teey sàngara see ñi ñi jaay la ci téeméeri junne nga naan ko sa xel mi fàddu dem mu desel la ak wér ak di feebar boo xam ne day des ci sa yaram wi nga di ko sooxalee ba xëy dee kon moo tax ma ne la dëgg-dëgg yàlla lépp lum ñu jox rek muy lu yomb lu baax lim ñu tàllal lépp wan ñu ko joxoñ ñu ko dafa ñu ko may jàkka yaa ngi nii lu ñuy bëri bëri jumaa ya xamul julli fay dara dem julli ba sa xol sedd rek mënoo jullee julli ba jeexal jàkka ji moo waral nit ñi li ñuy xëccoo lépp daraja la waaye mosoo dégg ñuy xëccoo diw ak diw lu ñuy xëccoo ñu ne penku bi penku bi kenn mënu koo xëccoo ba jeexal ko nga cay julli ba dee mel ni kenn mel ni kenn mosu cay julli keneen julli ba dee waaye li ñuy xëccoo lépp mooy daraja ak ba tànk yi rek lépp nag bakkan ak seytaane rek su ko defee nag kon jàkka yi amul fay dara julli ba ba sonn rek déglu amul fay dara rajo yi tey ñi taxawal ñu baax ñi taxawal ko fi nit ñi di ci jàngee seen diine amul fay dara waaye tey boo demoon tey ci yeneen place yi nga xam ne dañ fay moyee yàlla góor ak jigéen nga jaxasoo bala ngaa dugg fay toog fa ñàq tooy xep ak xet goo xam ne gu xasaw la ànd ak di fecc ka yëngatu sa nopp yi am bruit buñ la woowee téléphone doo mën a wuyu lu dul nga génn nga dee mu jural la ay duma kon safara ku fa dem rek yaa ko jënd aljaana ku fa dem tamit yaa ko jënd moo tax alquran ne inna allaha ashtara minal muminina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna ni nga nag kon nag yow jullit bi amal fulla jënd sa aljana te gedd ca safara ku la koy jaay nga ne soxlawuma ko safara nag mooy lu bon lu fi nekk rek ku ca bu nekk ca ta lu ca ëpp bala nga caa dem rek ngaa joxe sa xaalis kon nag loolu jar naa baxi xel bu baax a baax a baax su ko defee nag kon jëmmi sàngaraangoog ak la ca xaju kooku mi ngi bokk ci xaddis yi nga xam ne imaamu ahmad moo ko nettali bi ibnu abbas moo waxal boppam ne dégg naa ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëwal ma ne jibril ñëwal na ma man yonantu bi ne ma yow yonantu bi ma ne ko labbayka mu ne ma yàlla rëbb na sàngara rëbb na ki koy nal rëbb na ki koy nallu rëbb na ki koy naan rëbb na ki koy xene rëbb na kiñ ko xen rëbb na ki koy jaay rëbb na kiñ koy jaay rëbb na ki koy nàndale rëbb na kiñ koy nàndal boobu hadis ibnu Abbas a ko nettali yonantu bee ñëwal jibril jibril la ñëwal yonantu bi waxal ko ni ataani jibril alayhi salaam fa qaala yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna allaha laana alxamra wa asiraha wa muctasiraha wa shaaribaha wa xaamilaha wal maxmulata ilayhi wa baayicaha wa mubtaacaha wa saaqiyaha wa mustas wa mustasqiyaha sàngaraangoo ak mbonam nga ak la ca su ko defee nag yii ba ay wax la yoo xam ne boroom xam-xam yee ko wax ci kii naan sàngara bon gi bon niñ ko war a soree war a tamit ba nga jëflanteeg moom ngir li sàngara bon ndax ku bañ lu bon danga war a bañaaleeg lu bon loola ka ca nekk ba ke tegu imaamu Buxaari yu wax na ne Ibnu Omar wax na ne laa tusallimu ala surbatil xamri su ngeen rombatee mbooloo muy naanee sàngara ca bistoran ya ñenn ña nekk ca yeneen place yi may bañ a tudd te ngeen xam ko yonentu bi neen na bu leen rombee bu leen leen nuyu yaakaar naa ne nag nuyoo lu ko ëpp doole ci lislaam te mooy ñaanal ki jàmm wàcc yàlla wàccee ci moom yërmande ak barke ku yonentu bi ne téel ma sa làmmeñ ci moom bu ko nuyu kooka yonentu jéppi na ko yàlla jéppi na ko te naan sàngara kenn du ko nuyu ba ca tegu bii xadis la yonentoo wax ne bu leen toog ak naankati sàngara yi buñ feebaree bu leen leen seeti bu ñu dee bu leen fekkee seen janaasa ya ndax kat naan katab sàngara bu yowmal xiyaamee bu dekkee day xarxarama ma da ñul kuk làmmeñam wa buqeeku génn daanu ci ab dëndam su ko defee nag yuutam yay wadd su ko defee nag maanaam képp koo xam ne gis na ko rek xam ko xam ne kii moo doon naan sàngara bi sàngara moo tax mu ne laatu jaalisoo suraabal xamri wala taudu mardahum wala tashhadu janaisahum wa inna shaaribal xamri yaji'u yawmal qiyaamati musawwadan wajhuhu mudda'ilan lisaanuhu ala sadrihi yasilu lu'aabuhu bi qadrihi kulla man ra'aahu wa arafahu annahu shaaribu xamrin kon xadisa ngoog boo xam ne lu jara baxi xel la ci nu ñu war a teetee sàngara ak mbonam nga ak li ci yonantu bi wax su ko defee nag donte le xam na ñoo xam ne dañu wax ne xadis boobu mawduun min al lim nu juus yi loolu la gëm moom waaye bépp xadis boo xam ne tax dañuy wax ne daif la buy lu muy tere lu muy tere bëgg nañ ko ko baax buy lu muy digle tamit lu muy digle bëgg nañ ko ko def kon nag kii li muy tere muy kon ak sàngara bu xadis bi lompañoon tamit lan moom bi ma bu wérutoon maanaam naqalan wér na lan li ki tegu mooy wax leen ci boroom xam-xam yi mu ne bu ngeen gisee bi maanaam ñi tere seeti ku feebar te muy naan katab ndax naankatab sàngara ci boppam kàccoor la ndax dafa bokk ci bàkkaar yu mag yi te bàkkaar yu mag yi ku ca sóobu rek kàccoor nga mu ne tamit ku ñu rëbb la yàlla rëbb na ko yonent bi rëbb na ko comme ni ko yonent bi waxee sànq ne laana xam xamra wa saari baa su ko defee nag kon ak ki nga xam ne moo ko jënd ak ki ko nal kon nag kooka kon moom yàlla fa ko rëbb na ko ñaari yoon ndax rëbb na ko ki jënd gi jënd sàngara si rëbb na ko tamit ci naan gi mu naan suñ ko ko jëndaloon tamit jëndal gi ñu ko jëndal mu d'accord ci ak rëbb la ba tey tamit naan gi koy naan tamit ak rëbb la su ko defee nag su fekkee da koo nandalaat keneen jënd jëndal keneen naan mu naan am na ñetti rëbb tere googu nag moo waral mbon googu ñetti rëbb daanu ci kawam bu dee kenn ka muy ñaar looloo waral yonantu bi ñu ne tere ku koo seeti lu dul mu tuub bu tuubee na yàlla ko baax la rek mu jéggal ko sàngara nag ba tey xaraam gi ma xaraama tax mënta faj ndax lépp loo xam ne lu xaraam la rek duñ ko fajoo moo waral feebar boo ma mënee feebar ñu ne boo naanee sàngara wér loolu sax amut ku la ko wax tamit dafa lay jay rek ndax yonentu bi nee na yàlla def na sama xeet wi lu xaraam du leen faj moo taxoon mu ne inna laa lam yajal shifaa ummati fii ma xarama yàlla defut luy saafara sama xeet wi mu nekk di lu xaraam lépp luy lu xaraam rek mënta saafara sama xeet wi kon loolu day tekki mbon ak sàngara ak ya ci xaju yeneen yi nag ay ahadis la yoo xam ne mutafarriqa la mu nekk loo xam ne luñ jara xel la moo tax mu ne bokk na ca yonentu baa ngi wax sallallahu alayhi wa ne man kaana fi sadrihi ayatun min kitaabillah wa saba alayha alxamr jiwu yowma alqiyamati kulla xarfin min tilka al fa yaxudu bi naasiyatihi xataa yuqifahu bayna yaday laahi taala fa yuxaasimahu wa man xaasamahu alquran xasama fal man kaana alquran xasamahu yowma alqiyaamati yonentu bi nee nag képp koo xamee yàlla dafa dogal nga jàng alquran benn nga mokkal walla nga mokkal ci ak mbon sóobu la ba ngay naan sàngara bu yowmal qiyaamee aaya yooya dañu soppeeku ay xaraf xaraf ci nekk taxaw benn avocat buy ñëw di la di di di dal ci sa kaw ci kanam yàlla ne kii jàngoon nañu waaye jëfeewut ñu mi ngi nii daan naan sàngara su ko defee nag alquran mujji layoog moom te ku alquran layoog yow mujji xëy la nga mujji dem safara moo tax yonentu ne waman xaasamahu alquran xasama alquran képp kum layoog dana la nott mu tekke ne fal waylu tatak mbugal li man kaanal quran xasamahu yowmal qiyaama tatak mbugal waral na ci koo xam ne al quran taxaw na mujj di awaka boo xam ne day dal ci kawam kon nag loolu nañ ci baxi xel bu baax a baax a baax mu tegaat ci hadis bi yonentu bi ne ma min qawmin ijtamacu ala muskirin fi dunya illa jamaahu laahu fi nnaar fa yaqbalu baaduhum ala baadin yatalaawamuuna yaqulu ahaduhum lil axar ya fulaan laa jazaaka laahu anni xayran fa anta alladi awrattani haha al wa yaqulu al axar misla zalik mu ne xamul wenn nit ñoo xamee dañuy dajee xàndoo ci ak màndi bu lulul ba yowmal xiyaamee ñooña xàndoo xoon ñooy xàndoo xaat kenn ku nekk di yedd sa moroom ne yow kat lu bon li yaa ma ko yóbboo daanaa ñëw ñi dege ca bistoran ba du ma am bi maanaa nga jëndal ma sàngara ndax gis nga moom ñu bon ñëpp lu bon dañ ca àllaaye biir ñu bon ñi niñ xàndee bu ko ñu baax ñi xàndooxoon ci lu baax liñ nekk li ko doon baax rek a fii sax waaye ñu bon ñi ni ñu xamee tabe ci seen biir diggante man a man a man a man caa mel loolu lépp mooy rek bëgg mbon bëri rek moo tax ndax li li arab yi wax ne picc toujours cam nawleem yi rek lay dal inna tuyura ala a taqaw waaye picc du ñëw fekk ñoo xam ne duhut ay moromam yu mel ni ñoom mu cay tàbbi kon nag sàngaraangoog ak mbonam ak maanaam niñ ko war a moytoo yàlla nag buur bu baax la ku dégg mbon ak sàngara gii nga jàllarbi ko bi maanaa tuub jéggalu yàlla yàlla ku baax la ku bari yërmande la dana la jéggal wante nag ci sartaab tuub ga na fexe ba yore melow xalu safara mooy melow xalu safara mooy réccul buddeekul dogul li des ci sa dund ne dootuma delluwaat ci bàkkaarab naan sàngara lu ko defee rek bu defee rek tuub ga wér ndax xalu safara ku ci dëgg ku nekk danga tëb tëb googu nga tëb nag moo taxaw taxawaayu iqlaaxu ñaareel ba xalu safara ku ca dëgg da nga réccu lu taxoon nga dëgg ci kooku mooy taxaw taxawaayu woon niyatu allah yahuda xalu safara ku ca dëgg ba réccu da nga dogu ne dootoo ca dellooti li des ci sa dund bi kon nag maanaam annadamu ala ma fata wa an laa yahuuda fi ma baqiya min umrihi al al iqlaahu ñett ñi bu dëppoo ci yow rek tuub ga yàlla jéggal la ko kon nag yéen naankati sàngara yépp maa ngi ñaan yàlla dimbale leen dimbale ñun ñépp soril ñu sàngara comme ni sorilee diggante penku bi ak sow bi sàngara lu bon la mooy ndey ñaaw téef yi day rey xol day rey xel day demee tamit alal day day day day yàq sa alal yàq tamit sa wér gi yaram ba nga xam ne sa sante day nekk lu doy waar kuy naan sàngara boo ne jàkk xar-xaram rek gis ko na muy këddaaralee jàllale bi ko maanaam ñëgg tal du du am benn leer sàngara ku koy naan doo am leer waaye nag ku ci tuub rek yàlla ku baax la bañ na ko ba tuddee boppam ne innahu huwal barru rahim man yàlla may ku baax ku bari yërmande ki su ngeen ma du tooñ di ma jéggalu sax ma jëlee leen fi indi ñu may tooñ di ma jéggalu te man yàlla sama mbaax a tax lu nit baax baax baax soo ko yàggee di ko ñaan may ma may ma bu yàggee mu jéppi la man yàlla nag soo ma wax may ma may ma man maa lay jéppi kon nag jéggalu leen ma ma jéggal leen tooñ leen ma te tuub ma baxal leen waaye nag tuub moom fokk mu xam te mooy nañu buddeeku ba sàngara sori ko su ko defee ñaareel ba nañu dogg ne dootuñ ko naanati ñetteel ba nañu réccu lu taxoon bi ma naa ñi di ko naan su yi taxaw nag ba pare nga jéggalu yàlla lu taxoon ngay naan sàngara sax ndax yàlla lu ne da ko wutal frontière comme dafa lay waxoon ne bu leen jege sama frontière yi tilka xuduudullaahi falaa taataduha fii mu ne falaa taqrabuha yow sa bakkan ak seytaane manee la ba nga jéggi frontière ba yàlla ne bala nga maa jox loxo gaaw d'abord bu deekul dellusiwaat fi ma la yemloo woon nga yem fa muy benn ñaareel ba réccul lu taxoon nga jéggi fi ma la yemloo ñetteel ba mooy dogul ne dootuma fa dellooti su paree nag nga taxaw ci sa place ba nag jéggalu yàlla ne lii de maa ngi jéggalu yàlla lu taxoon ma di ko def nag jéggalu door a mën a ñëw kon nag istixfaar ak taw ba duñ benn bala ngaa def istixfaar na fekk nga def taw ba ba pare kon nag léegi mbir màngook ñu bàyyi ci xel taxaw ci taxaw boo xam ne ni bu ama am solo la def ci njàngat kon nag maa ngi jox ëllëg rendez-vous ci waxtu wi insha allahu rabbi yàlla yàlla defal ñu dégg defal ñu topp defal ñu tawfiq defal ñu taysiir wa axiru daawaana an alhamdulillahi